bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa asna xadimihi sawi ridwaani wa tamkin bokk yi ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di sant suñu borom ndax tey jii yàlla dogal na ñoo ngi fii fi Mayumba Mayumba nag ci taarixu yoonu murit ak jaar-jaari sëriñ bi kenn dootu ko laajte ndax fu ñu ko tuddee gone yu ndaw yi sax xam nañu Mayumba mooy lan yàgg nañ koo dégg Mayumba nag di dëkk boo xam ne mu ngi nekk ci réewum Gabon ci wàllu ci wàllu bëj saalum gi la féete eh, dend itam ak ni ngeen ko séene ci ginnaaw géej gi nga xam ne moo di océan Atlantique bi eh, waaye itam eh, moom géej googu di fóonante maanaam di sësaloo ak li nga xam ne moo di li ñuy tuddee dexu baañoo dexuk Bagno euh, mooy dex gi ngeen di seen nii ci seen ginnaaw <coughs> euh, muy dëkk boo xam ne kon dëkku euh, dëkku ndox la bu xaw bu bu enclavé rawatina ci jamono yi nga xam ne ci la fi sëriñ bi di ñëw ndax booba diggante diggante ba waxtu wi rek ñun ñi nga xam ne bi ñuy ñëw ci oto la ñu jaar ba agsi gis nañu bu baax a baax coono yi nga xam ne dont sax kenn maanaam ñi mu wut tudd coono ndax li li nga xam ne moo ñu tax a jóg xam nañ ko bu baax waaye gis nañu daal xëy na yenn jafe-jafe yi nga xam ne dund nañu ko ci wàllu yoon wi te léegi sax wax dëgg yàlla macha allah neex na lool ndax man mii di wax ak yéen ci atum 1995 ci laa fi njëkk a ñëw ci janvier ba te booba weeru koor la woon booba daanaka yoon wi piste rek la boo xam ne nii dangay ngay eh, yéegi ko wàcc rek ba agsi kon léegi moom fa tabarakallahu neex na lool sant bu baax a baax dëkk bi nag di dëkk boo xam ne bi fi sëriñ bi di ñëw booba ni ñu ko waxee booba ñëw fi yombul waaye ci yoon ci yoonu ndox la jaar ba ñëw fi mooy ginnaaw bi nga xamee ne Eh, jóge na Libreville def fa ay weer nañ ko waxee woon foofa daal di fay jóge nag ñu daal di koy indi fii ci ci réew yi baa weli waroon wax ne fi nga xam ne mooy dëkk bi ci boppam xeet wi fi nekk te sëñ bi di leen tudd ci ay mbindam muy baafali ji muy wax mooy ñuy tuddee les wili eh, baa nag ci seen làkk ñoom waa maanaam xeet wi nga xam ne ñoo dëkk fii te yaatu lool sax du Gabon rek dem na ba Afrique australe muy ñuy tuddee xeetu bantu bantu la ñeen tudde ñoom bu ñu nee baa ci seen làkk mooy lee lee nangam ci misaal la ñuy wax baa wili muy le wili di wax baa punu le punu di wax baa lumbu même fi dëkk bi sax am na beneen xeet bu fi nekk bu ñuy wax le lumbu ñoo wax baa lumbu euh, ak yeneen yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne am na moo tax sëñ moom baa fari lay wax léegi nag bi mu fi ñëwee def na fi juróomi at lu ëpp ci tukki bi géej gi fii la ko def juróomi at yi biñ fi ñëwee biñ fi ñëwee te ànd ak Cheikh Mourtada ci atum mille booba euh, am na am na benn labbe bu ñu fekk bi ñu koy laaj xamal nañu ne sëriñ bi fii nga xam ne moo dend ak dégg nga mission catholique bi fi la amoon néegam boo fii itam soldaar yeeg maanaam commandant beeg ak labbe yeeg dégg nga révérend kii euh, maanaam pasteur yi fi lañ nekkoon ndax ndax am na benn bâtiment bu ngeen di seen ne ci seen wàllu ndeyjoor foofa euh, fa lañ daan former pasteur yi ci li nga xam ne labbe bi leeral na ko booba itam saaru internat la woon boo xam ne buñ buñu masaane ñu dañ fiy nekk ñu leen defal lu mel ne séminaire di leen di leen jàngal ak leen formé booba labbe bu mag bi nga xam ne moo nekkoon ci Luwango ci Congo nga xam ne soriwut fii lool ñu ñu koy wax kari moo daan jóge foofu di ñëw fii euh, di dégg nga toppatoo loolu moom labbe boobu sax ci livre Omar Ba bi gis ngeen mu koy tudd di wax ne chargé woon nañ ko mission spéciale ci sëriñ bi donte leeraluñ maanaam dëgg-dëgg lan moo nekkoon boobu mission kon sëriñ bi ci biir quartier gi la ne woon dend ak soldaar yi dend ak euh, labbe yi dend ak mission catholique bi Euh, maa ngi fàttaliku ci at moomu labbe bi bi ñu koy laaj muy wax ci sëriñ bi di wax fi mu nekkoon ak yooyu ni mu fi nekkee woon am na benn cloche bu ne fii boo xam ne boo ko xoolee en 1897 lañ defar cloche bi nga xam ne kon bi mu fiy fekk na fi sëriñ bi la fi fekk ndax sëñ ko fi jiit ndax jàpp naa ne bu fekkente ne ay weer la def Libreville muy ñetti weer jëm juróom-benn weer léegi bu ñu jàppee juróom-benn weer yi kon mooy ne eh, bi mu fiy ñëw fekk na 1895 yi jeex na ba bañ dugg ci 1896 yi mu ñëw fi Euh, loolu kon mu def fi lu ëpp ci li mu def ci géej gi biñ bi bi labbe bi wax loolu ba mu yàgg maanaam kolos boobu sone mu ne dem leen ngeen laaj kolos boobu moom dana leen wax ni fi Cheikh Amadou Bamba nekkee woon ndax moom ñoo fi bokk nekk sëñ bi nag juróomi at yi mu fi def juróomi at la yu metti lool ndax ku gis fii ni mu mel léegi nii sax tabaarkàlla nga xam ne am na ay dëkkuwaay am na ay ñun bi ñëwee ci hôtel la ñuy dal di dugg ci hôtel yu ak climatisé bi sëñ nga xam ne booba climat bi taw bi bari bi ak li ñuy tuddee ay godd ak mëttu mëttu yi ak yi nga xam ne day matt yooyu bari woon na fi lool sëriñ bi doon jànkonteeg loolu lépp te kenn waajalu ko woon comme ñoom tubaab bi ni ñu daan waajale seeni seeni seeni colon ndax colon yi fi daan ñëw bu ñu fi daan ñëw dañ leen di waajal ci col gi ci dëkkuwaay yi ci lekk gi eh, ci ci lépp rek ci wàllu médical ba nga xam ne bu ñëwee danañ mën a jànkonteeg maanaam climat bu humide bi humide lool barim ndox lool barim ñax lool am na ci ñax yi ñax yoo xam ne rek dafa am tooke am ñax yoo xam ne dafa dafa dafa ñaw mel ne lañ seen nga xam ne dafay dagge yooyu yëpp sëriñ bi di jànkoonteeg moom waaye téewul rek yàqalu ko woon dara ndax loolu la bëggoon moom li mu bëggoon mooy li mu ne woon géej mooy wéet mën a jaamu yàlla mën liggéeyal sallallahu alayhi sa sallam ci ni mu ko bëggee moo tax juróom juróomi at yi mu fi def nee na ci laa mujj mel ne ab jant tiim ñëpp tiim fépp daal nekk fépp itam tiim ñëpp rek amal njariñ ñëpp itam fii itam fi la sampoon ñeenti bantam yooyu nga xam ne ci buntu néegam la ko defoon defoon ko mu nekk jàkkaam commandant bi ñëw na nañ ko buddi santaane ñu buddi ko biñ ko buddee fonctionnaire sénégalais bu fi nekkoon bu ñu wax yelli sey ñëw di xuloog dégg nga commandant boobu li ko commencé ci tàggu saan ba jant bi di bëgg so ñuy xuloo nee na sëñ bi nee na bu ñu doxul woon seen diggante kon ñu xeex fekk na boobu suñu borom jox na ko ndigal ne ko na taalif xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee rabbana axrijna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha wajal min ladunka waliyan nasira ci suratu nisa euh, euh, mu daal di mu daal di mu daal di ci koy mu daal di ci woy ak xasida goo xam ne mi ngi ko ubbee raditu an il mawla taala allazi rabba fuaadi wa aqnaani fa akrim bihi rabba di woon di wone tawxiidam ci boromam ak xolam bu sedd koo xam ne yaa ngi ci digg natt yu mel noonu di jànkonte ak yoonu yooyu waaye booy jàng xasida gi da ngay gis ni mu bàyyee xel boromam Euh, mbégte mi mi am ci boroomam wéetal gi mu wéetal yàlla day feeñ ci xasida gi xasida sëñ sëñ sëñ Lamine Dagana bi mu ciy ci xasida gi daf ne xasida taasir la fi dafi wal jalbi waaye nag fal yattaqillaha mustaamiluha ki koy jëfandikoo na ci ragal yàlla bi mu woy xasida gi nag ba ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba ci la suñ boroom xamal ko ne ko nangul nañ la li ngay ñaan muy ñaan yàlla daal yàlla may ko jumaa yaatu yoo xam ne dana wuutu ñeenti bantam yooyu mu ne ko dongul lañ la ko da nga dellu ci réew ma te boo delloo da nga gis jumaa jooju moo tax bi mu ñëwee njaareem ba tabax jumaa njaareem ji ba ñu ubbi ko yëlli sëy moom yi doon xuloog moom euh, doon astaghfirullah doon xuloog ki nga xam ne moo doon commandant bi euh, yëlli sëy moomu ñibbi si dem Ndar jóge fa ñu siyaare si sëriñ bi euh, sëñ bi ne sëñ Madu Lamin àndal ak sama gan gi mu dem mu visité jumaa ji mu ko visité biir ak biir ci kaw ak suuf nday jor ak càmmoñ bi mu ñëwee sëñ bi ne ko waa yëlli Euh, sama sama ñeenti battee lu mu def sama jubaa ji mu ne ko subhaanallah xanaa sore lool nee na mu ne ko loolu laa jublu ci saaqa li gayrillahu fii maa yumba maa saa qalbiya wa alal janba yàlla matal na ma wala daqal na ma la naqari woon sama xol mooy buddig ñeenti bant ya waaye yëkkati na sama wàll yi itam mooy yëkkati ko sooroor yi jaareem yi ak sax sooroor yi tubaa yi léeg sax ma ak it sooroor yi nga xam ne moo ñëw ginnaawam muy sooroor masaalikul jinaan yi yi montagne sent ji rek ba ci soroor yi nga xam ne incha allahu taala jàpp nañu fii fi maayam ba dana fi dégg nga dana fi am ak yeneen ak yeneen ndax moom lépp lu lépp lu mujj a ñëw ci mbiram rek mooy gën a yéeme kon yooyu daal tënk la ci xew-xew yi nga xam ne xew na fi bind na fi it ay xasaayit yu bari yoo xam ne am na ci yoo xam ne dafa am xew-xew yum yum yum àndal yum lëkkalool na ma naa ko tudd ñaar rek benn bi mooy ñaari ala inna nii muy miimiye bi ak xaafiye bi ala inna nii arju ak ala inna nii uh, usni ala inna nii usni la njëkk taalif bi mu ko taalifee fekk booba dafa am nee na ku ko dig ci bokk yi ne woon fii koo xam ne euh, bu dul bu dul Sénégal yi déggoon na wolof tuuti da koo digg daal misk maanaam parfum dig ko keneen sëñ bi nee na ba bi nga xam ne dig bi jot na donte yaakaaruma sax moom ci ñoom lenn lu may jox euh, yàlla rek la yaakaar ma dem di ko jëli bi ma ñëwee ba jub kër gi dégg ko muy xoloo ki mu digoon moom itam euh, ci ci même dig bi ndax da koo dig loo xam ne dana ko boo ñëwee wa sàng ma jox la ko waxtu jot mu ñëw jox ko ko ma ngi dégg ñuy wax ay wolof yoo xam ne wolof yi setut waaye dégg ma dégg wolof te toog naa lu yàgg ci dund bi dégguma koy wax wolof fàttali ma samam réew ba noppi it xam gi ma xam ne yàlla rek moo mën a diggee matal ab diggam te mosuma wékk sama yaakaar ci ci ñoom doomu aadama yi ci yàlla rek laa koy dénk ma daal di wàññi ko waat nag ñaar yooyu nag yëngal ma nag ma daal di jël sama sama xalima daal di taalif xasida rek ala innani usni ala xayri munami wala astaki lil xalqi min faqdi anumi man daal yàlla laay tagg yàlla lay kañ yàlla mi nga xam ne mooy ngeen ji aji xéewale waaye du jàmban mukk samay soxla wala samay aajo ci doomu aadama yi alaa indi ne arjub bi nag moo bi mu koy taari boobu dafa woor weeru koor yi ba koor gi jeex amul lu mu génnee murum koor mu murum koor mu ne su ma ko amoon du ma am ku ma ko jox mu génn ci ci ab bayaal ci ci ci ci maanaam ci dun bi daal di julli julli ay dem ñaari xale yu jigéen dox ba tolloog mu taxaw nee na ma sëlmal daal di sant yàlla wax ko ne ko nag li nga ma digaloon li ma ci man def naa ko li ma ci manut yéene naa ko nag ma ko fay wala nag ma ko nangul waaye maa ngi taalif xasida goo xam ne kon mooy wuutu lool daal di taalif xasida rek ala innani arju min alwaasi alxaq bi jaahil muqafa nasir alxaq bil xaq yooyu daal ak jaalibatul maraqib ak eh, fi lay yeesal gis boobu mbaahi bu fi la ko yeesale ak yeneen ak yeneen di xasida yoo xam ne bari na lool nee na taalif na fi sax téere boo xam ne sax da koy da ciy wax yu bari ci ay xat baax yu am téere boo xam ne tuddul tudd téere ba waaye nen téere la boo xam ne yàlla fay na ma ci bi ma ko taalifee nong gi ma ko nangu jihaati way jihaati yeeg sant ko way sant yeeg tudd yàlla way tudd yàlla yeeg yëpp tudd li ma ci man def naa ko li ma ci manut yéene naa ko nanga ma ko fay wala nanga ma ko nangul waaye maa ngi taalif xasida goo xam ne kon mooy wutu lool daal di taalif xasida rek ala inna ni arju min al waasi al xaq bi jaahil muqafa nasir al xaq bil xaq yooyu daal ak jaalibatul maraaxib ak eh, fi la yeesale gis boog mu waay bu fi la ko yeesale ak yeneen a yeneen di xasida yoo xam ne bari na lool nee na taalif la fi sax téere boo xam ne sax da koy da ciy wax yu bari ci ay xat baax yu ma am téere boo xam ne tuddul tudd téere ba waaye neen téere la boo xam ne yàlla fay na ma ci bi ma ko taalifee nangu gi mu ko nangu jihaati way jihaati yeeg sant ko way sant yeeg tudd yàlla way tudd yëpp tudd ku fi ñëw war ngaa jàng ne Sëñ Tuubaa daal nekk nekkal gi mu nekkaloon yàlla moo ko may lii tey ñun ñu mën a jóge fël dëkk ba def kar la def mbooloo di ñëw fii di ko fii di fii di fii di ko fii di ko di ko di xeeñtu ay jeexitam waaye di jéem a sant yàlla di ko di di ko jéem santale yàlla ci xéewal ne na suñu borom la ma wane samay ayibi bopp ba ma gis ko mu laabal ma ci ba ma set fi laa nekk abdullahi dëgg-dëgg nekk xadimu rasulillahi dëgg-dëgg nekk xalilullahi xaritu yàlla nekk xabibullahi soppe bi yàlla waaye nekk xalil wa xabibu rasulillahi soppe ak xaritu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal li ci tënk mooy <laughs> li nga xam ne xew na fii ci eh, ci dégg nga Mayumba wala ci Baafali ni ñu ko ni ñu ko waxee woon sant di gërëm asalaamaaleykum wa